jibi ñu bëgg a xam ci lan nga nekk parce que dan nañ la gis ci ginnaaw ki nga xamante moo di Youssou Ndour nga di ko aw mais fan yi dañu dañ la xaw a gëj a gis ci ay programme am ba pare jibi yaa ngi liggéey ba léegi ak euh, ki nga xamante ne moo di Bouba Ndour ci lan nga nekk wala danga beex sa daara actuellement non liggéeyatuma ak Bouba Ndour man liggéeyatuma ak Bouba Ndour xëj na c'est mon ñu bari dañuy foog ni ba léegi ñu ngi nekk mais je ne bosse avec lui suma contrat moom jeex na bu yàgg am nga super étoile nag super étoile la du Youssou Ndour moo ko moom du Ibou Cissé moo ko moom du El Hadj moo ko moom du Mbéjé Faye moo ko moom du Jimi Mbaye moo ko moom du Assane moo ko moom xam nga du Thio Mbaye super étoile groupe la kër la famille. mais est-ce ñu ngi lay woo comme niñ la daan woowee ngay aawu ak yooyu. ba tey man Djiby Sèye man kenn du ma ku ma fase baara sëw ma Mame Marie amul beneen sët ku dul Youssou Ndour man maay sëtaatam keneen ku way ku ne da nga da nga da nga nii ngay def nii déggoo ma de sama yaay dàq way ñëpp Nafi Seck Nafi Seck ko du Seck kenn da ko dàq way mooy taw Mame Marie kenn da koo xam kenn xamu ko. am na Nafi tamit sa liggéey ak Bouba Ndour amul lu mu gàllankoor sa carrière parce que ku gis carrière yu Djiby Sèye ni mu demee nga xam ne am na am na lu am na lu la manqué woon am na lu tardel na la quand sa liggéey ak moom. waaw tardel na ma. loolu moom tardel na ma boobu nduur moom ñëpp xam nañ ni tardel na Djiby mais man ak sama macha allah alhamdulilah mais dañuy sant yàlla parce que sama mbokk moom ma sañ a def loolu bu doon keneen la duma dama koy wan ginnaaw boobu Ndour bon en fait jëriñ na ma nag macha allah alhamdulillah maa ngi koy féliciter di ko remercier di ko nuyu au passage def na ci man de waaye loolu waa ah, def na ci man pour nit ñi xëy na peut-être gën ma xam parce que au niveau de comment dirais-je communication beeg télé bi télévision beeg ñoom seen xaw na ci def tuut xam nga mais euh, li ma li ma li ma man li ma dund ak li ma def ginnaaw yàlla la ma yàlla may man maa ko wane. du nekkul yow tamit yaa naqaree jàppale ji bi. waaw man dama naqaree jàppale parce que ma tàng xol. man du ma naa tàng xol ak lan. dama tàng xol te du ma naa féq lu ma bëgg a wax nit ki dama koy wax loolu moom ku ma xam xam ne Djiby Seye nii la mel man bu dee da ngay dund man sax te li ngay dund ak man amul sens ma romb la du ma la faale xam nañu li ñuy wax. pour producteurs yi dégg la ak ñi nga xamante ne ñoo ŋànk musique bi dégg la sa sëy ak Bouba Ndour tas na. yàgg na bu yàgg moo sama ni yàlla rek maa ngi koy nuyu de passage ne yàlla na am. ko mel ni yoonte bi nag ñaawoo am na ba pare. ñaawoo ñaawu maak ñoom de ñaawuma ak ñoom te tey bu ma dul bu jàkkaarloo woon ngay xam ne ñaawuma ak moom man ñaawoo man su ma bëggoon way damay way su ma bëggoon defi lu ma neex dama koy defi de man xaaruma Bouba Ndour wala Youssou Ndour de xaaruma leen dama fa nekk ndax yàlla ndax ay ay fa da deret ak mbok man Youssou Ndour bu doon bu doon moom rek lay xaar pour pour jëriñu ma xam ne du ma jëriñu man man liggéentu mooy Youssou Ndour la muy def ak la ma dul def li ma séq ak moom xam lu ma séq ak moom liggéey ak moom mu fay ma ma dem sama yoon Youssou Ndour séqu ma moom leneen Bouba Ndour séqu ma moom leneen lu loolu ñooñu li ma séq ak ñoom liggéey ñu fay ma ma dem su ma liggéey ñoom liggéey ak ñeneen loolu kese la